xam nga ñun sànniwuñu defuñu dara xam nga gars yi ñoo ñëw ne dañuy disperser foule bi xam nga booy disperser foule xam nga li ma wax ñun ñëpp ay sénégalais lañ mën nga ñëw ne jeunes yi xam nga dañuy tere nangam ak nangam mais doo ñëw rek dóor nit ñi de lakk mais seen loxo yi yam sa sa waaw léegi nag xam nga li may ñaan jeunesse bu Sénégal xam nga bu ñu yàq ñoo xamante ni ñoo ko moom. parce que voilà parce que lépp loo xamante ni bu dee oto jàmbur la wala kër jàmbur wala xam nga loo xamante ni Sénégal la ko moom. xam nga après dañ koy dabuwaat. voilà bu ñu yàq dara nañu fexe xam ñu déggoo dégloonte. xamal ma la fexe ba ki nga xamante ni moom mooy fexe. xam nga ñu jëlee ko ci réew mi. xam nga fan fan ngeen la fajee bi bi nga gaañoo. non am na médecin ci biir kër gi. xam nga moom moo ma defal affaire bi léegi a dem hôpital nii léegi. boo ñu mënee wanaat gaañu gaañu noonu. nañ ko ba pare quoi mais. mais Assane neel seen ci biir. moom fee moom jàmm rek fa nekk. Ousmane ban état la nekk ci biir kër gi Ousmane Sonko man li ma gaañu moo tax may génn damay ñëwaat. wax sànq suba rek xam nga ko yóbboo ñun ñëpp la yóbbu Sénégal yëpp la yóbbu. kon a pare pour ànd ak moom non pare nañ pour dee. pare nañ pour dee.